du du l'importance di am ay avie euh, ce genre yi nga xamante ne xam nañu ti dara euh, ci ci plateau yi nga xamante ne moom la ñuy am alors euh, suñu invité sànq ñu ngi leen ko doon wax ba suñu invité yi bokk na ci commissaire Keita il vient d'arriver commissaire ñu am mbégte dalal la si suñu plateau ñu ngi leen nuyu. sant bu baax wax maa ngi leen di lu nuyu di excuser wu ci retard bi. parce que fu ma jógee dafa sori. je le disais tout à l'heure mm-hmm. di ñaan yàlla lépp luñ fi taataan mu jëriñ askan wi. di nuyu tamit ñoo bokkal plateau bi. Mm-hmm. di Euh, comment dire encore. Euh, Aliou Sow uh-huh. di nuyu Hélène. Uh-huh. di nuyu sama camarade bi di nuyu ñëpp vraiment. Uh-huh. ku nekk sa tur ak sa sant. laa eh, ma bàyyi leen ak parole bi comme dama tardé. mu ngoog eh, ñu lay fay bu baax baax ci yow sax laay ñëw léegi le temps juste ma ma suñu beneen chroniqueur bi nga xamante ni moom itam euh, en retard Kader. oui oui juste euh, vraiment au niveau de Cambérène daal chantier yi mu nekk foofu moom moo ñu xaw a tënk tuuti. Mhm. ñu ngi ciy excusé bu baax a baax te nuyu ñu bokkal plateau bi ñëpp. jërëjëf jégaluwaat beneen yoon. ma ngoog jégal nañu la ñu lay fay itam alors commissaire ñu ngi doon waxtaanee euh, coow bi bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak kile di Mame Mbaye Niang euh, démb ñu waroon dem tribunal ñoom ñaar ñëpp ñu gis ne Ousmane Sonko moom il a préféré. bañ a dem mu joxe excuse comme quoi jotul convocation boobu le alors euh, tey euh, doxalin bi mu am parce que gis nañu parquet ñu ngi ko doon wax léegi di wax ni euh, ñu brandir même les preuves que convocation bi justement jot na ko tey ban analyse ngay am ci ci ci loolu. d'abord man dama ni am na li nga xam ni waruñu ko wax di ko jëmale ci justice ni muy fonctionner. ce n'est pas compréhensible soo miinee justice miin administration particulièrement justice di wax naan convoqué wala ñàkk convoqué convoqué foofu amul explication dañuy seeti ki ñu woo kay naka la fexee ba demut nan la lijjantee boppam ba demut ba am laay yi mais la justice fonctionne avec des règles yi nga xam ni doo ko fekk sax yenn administration yi su waree dem procès ñu xool gis machine bi yëpp daw na toute la machine s'est mise au même rythme daw na taxaw pour que convoqué ñi ñu convoqué ñëw ñi leen convoqué wax ak ñoom machine bi yëpp daw na ba mu des fenn rek la enrouillé ça veut dire qu'il a problème te ci boobu endroit la nekk du machine bi moom ci boppam mais ki ñu convoqué nan la def ba créer situation bi nga xam ni moom agsiwul ñëwul ba noppi nag léegi nan la lan la indi comme lay yi li mu indi comme laay yi dinañ ko analyser mhm. jotuma convocation bi kenn convoqué wu ma c'est la même chose or bi ñu dawee tuuti gis nañ ni effectivement dans les formes am na li nga xam ne wane na ni li tax ñu dem toog di nga xaar c'est parce que li ñu waroon def yëpp pour mu ñëw def nan ka mooy am nañu mandarga bu ñu wane ni kii kat su fekkoon neex na ko mu jot ka def na ka mm-hmm. ma dem ci wax ji li nu jot ci wax nee nañu jot nan ka mais moom moo ni jox leen ko diw. mais su fekkoon dafa yem foofu rek. ok su nit ñi demee di nga xaar dafay doy waar mais su fekkee am nañu ay traces pour wane ni jox nañ ko kooku effectivement ba kooku mën nañu reconstituer loolu. ça veut dire que problème bi c'est au niveau de l'autre loolu nag euh, jàngat bi c'est très simple ci champ politique la ñu nekk kii dafay jouer pour am na lu muy préparer fii nekkul à l'aise ci situation bii ñu ko présenté mënu mhm. ma nekk fii di wax parce que parce que parce que du ma juge bi mhm. li ma xam ci dossier bi li ngeen ci xam yéen ñëpp la mhm. dafa am ku ko porte plainte pour diffamation kooku ko porter plainte pour diffamation mënul régler boppam problème am moo tax mu dem ci yoon taxaw foofu donc ñun tant que euh, demuñu ci yoon rek mënuñu sax dépasser information bi ñu am mais si on parle politique il y a li nga xam ni mën nañ ko defee politique ak li nga xam waruñu ko defee politique. Mm-hmm. man gëmuma yow nga am problème sa diggante ak nit ak quelque que soit sa statut. quel que soit ce statut quel que ki nga xam ni moom nga séqal mm-hmm. ñu war obligatoirement askan bi yëpp nga war leen bi ñu fekk la ci champ bi nga xam ni fa nga nekk le plus à l'aise muy manipulation politique mm-hmm. pourquoi parce que loolu du sottal dara on le verra quel que soit alpha ñun ci li ñu xam de bu asamaan si doon tuuru justice day jaar ci yoonam. Mhm. il faut que tey ñu am njàngat ci ñaari affaire yi affaire Mame Mbaye Niang bi ak Sonko. Mhm. ak affaire Adji Sarr bi ak Sonko il faut que ñu jàngat ci li nga xam ni moo ñuy tax a teel a mhm. parce que li ci des yëpp c'est inutile on va en parler. c'est inutile li ñuy tax a teel a àgg mooy ñu bàyyi lépp place am finalement ñu bàyyi lépp place am ça veut dire ñu bàyyi état di dox normalement sunu institution yi la budde dafay redressé wu parce que yànq na mais la bu dafay redressé parce que chance su Sénégal foofu la nekk sauvetage Sénégal foofu la nekk parce que leneen mënul nekk en attendant que vous me posiez d'autres questions loolu laa mën a ah, alors bu ñu déggee ay jege ñaaleem jàpp nañu ni affaire bi également si politisé euh, te dégg nañu démb sax ñuy joxe exemple le fait que quartier wam dañu ko bunkériser ñu gis ni que gendarmerie takk der yi en tout cas dañu fees dell ci mbedd bi ci nee nañu loo xamante ne euh, dafa opposé euh, citoyen simple ak ci digganteem ak beneen citoyen simple tey euh, ndax mënuñu leen jox raison bu ñu gisee schéma bi bi am démb. non c'est pas possible su fekkoon ni fii la affaire bi commencé situation yii tënku bi ci réew mi fii la commencé mën nañu wax ni wéy dañ koy jaay doole moo tax ñu génne doole néewal. Mhm. mais dafa am lu jiitu lii yëpp. dañuy jël rek danu am ku ñu woo ñu jël ay alkaati yóbbu foofu. Mhm. moom kenn woowu ko tey. dañ ko woo avant ça ci yeneen situation yi nga xam ni woo bi dara la li tax ñu woo la ak woo bi woo bi kiy doxal justice daf la war a woo mm-hmm. loolu dara la c'est un acte de procédure mm-hmm. convoquer quelqu'un ci yoon c'est un natt de procédure acte la yi nga xam ni pour que justice dox mm-hmm. il faut que ñu poser leen mënuloo juger ay nit te woowuloo kenn te woo boobu ñu lay woo du woo rek eh demal wuy ji xaadi wala demal wuy ji chef de quartier. Mm-hmm. déedéet dañ ko tënk ci ay yoon encadré ko ba mu net ba ku nekk kuñ ci woo xam nañ liñ la woowee lu tax ñu woo la mais bu fekkee ni yow woo biñ la woo benn yoon. dañ ko def mu indi ay jéya mm-hmm. indi ay trouble indi ay dem ba ñuy compter ay bakkan yu dee mm-hmm. dafa am ñaari responsabilité liñ la woowee muy justice ak ordre ak sécurité ak tranquillité dafa am li nga xam ni boo bu dul moom bu dee keneen sax loolu lu lang lu lu ñu lu lu askan wi teg ci baatu autorité yi la mu commencé ci président de la république en tant que président pas en tant que l'adversaire politique qu'on veut sur la place publique en tant que président ministre yi nga xam ni dañu yore ay portefeuille de souveraineté en particulier ñoom ñooy intervenir ci boobu secteur muy ministre de la justice à commencé par lui mm-hmm. pourquoi parce que quel que soit alpha dans en matière de euh, maintien et de rétablissement de l'ordre ci secteur am la finalité yi nekk mais ministre de l'intérieur ministre des forces armées ñooñu dafa am rôle yi nga xam ni c'est des pouvoirs régaliens de l'État ñoom ñoo nekk levier yi ah su lu mel ni amee mais dañuy taxaw seen taxawaay bu technique su la neexee nag nga jaxase ko mais taxawaay bu technique am na ku ma ko laaj démb di ma laaj lu tax ñu encadré foofu. Mhm. mais non prévention dafa jiitu. da da lu mel nii am réew da ngay da ngay fàggandiku mooy prévention. Mhm. fàggandiku boobu dafa nekk ci téere yi ñu organiser ko jox ko ay jumtukaay dénk ko ay nit. fàggandiku boobu dépendrewul ci ki ñuy poursuivre ak lu tax ñu poursuivre ga mhm. dafa dépendre ci li nga xam ni moom la ñuy ragal mu nekk te am na lu ñu indiqué ni lii mën na nekk. Mhm. comme xam nañ ni lii mën na nekk responsabilité bu rëy la c'est des responsabilités d'État ñi nga xam ni ñoo fi nekk di sàggan di ragal ku leen jiiñ politique ba ñu fayir suñu fayiree ils sont responsables devant le peuple sénégalais. amul loolu amul ay naa ko def su ma ko defee dañ may wax lii def ko te ñu wax la. Mhm. c'est responsabilité absolue da nga koy def te ñu wax la. Mhm. mais au-delà de ça maintenant mën nañu wax ni d'accord dañ ko politiser mais ça retourne sur le champ politique ñu régler ko foofu. su ñu demee sur le champ pour di régler day des toujours affaire bi ci boppam affaire bi du dee. ordre bi daf fiy nekk par force dafay nekk kenn mënu si dara politique bi mais loolu moo jaxase nit ñi. kenn mënul tere kenn mu ni affaire bii ma nekk dañ ko politiser loolu tax ñu jaay ma doole kooku ay layi la. Mhm. mais ça n'influe pas sur la marche de la justice. il faut qu'on le fasse et ñu dooleel que Sénégal yi loolu moo leen di libérer. Mhm. ñu libérer séparer camp yooyu yëpp moo leen di libérer mois je suis d'accord. que ñi nga xam ni dañu bugg argument wu justice ñu wax ni ah politique ñu wax ni dafa politique c'est un débat on va les y rejoindre tout le monde doit les y rejoindre mm-hmm. pour ñu wax ko parce que noonu la réew di doxee mais quant à ce que politisation boobu empêcher que lii nekk suuxa bi ñu doxal ko c'est pas possible suñ ko defee rek on aura jeté le pays à la poubelle c'est clair alors euh, Abdoulaye euh, procès bi dafa jur énormément